ak yille xéewal ku seet la wam ngi ta santoo teraloo baay faati ak may moone mbokk julit yi mbokk Tali yi ci ndigalal sering muntaha Mbàkke khalifa général de Mouride ci ndigalal sering moudou jauh, ak rakam ak képp ko yang yaangi bokku ci fami Njawet bis bu mag bis bu am solo bis bu bari njëriñ bis ban bisu sant soxna jaara kan mo koy def serigne Bas jauh, mom sering moudou jauh, borom cere ji fa la koy defee gédé mi ci wo ñëpp bàyyiwuñ kenn bis ba kañ lay doon ñaar fukki fan ak juroom ñet ci wéru novembre bi serigne Bas jauh dal nee mi ci wo ñëpp bàyyiwuñ kenn serigne bassirou diaw ñi di ci jital yaayam ji tek ci serigne bassirou Tall ak Serigne Baba Ndaw ñi moy ñi nga xamante ñom la ko parrainé bis bi nak mi ngi ko tuddé Serigne Alaaji ndjay di xaritam di wolereem di sopem, di ko xamante ko xam Serigne Bass Diaw xam nga Serigne Alaaji ndjay ki nga xamante mom la tuddé bis bu ma bi di ngontom soxna jaara Serigne Bass Diaw nee marsa oukas commerçant yi seen bésa ngoog appelé wulen ci dara Serigne Bass Diaw mi ngi talal loxo commerçant wala opérateur économique bayu kenn képp ko xamante yaagi jënd ka jaay Serigne Bass Diaw nee sa bisa ñena nak mi ci wo Serigne Bara Sall doomu ndeyam ko xam Serigne Bass xam nga Serigne Baara Sall xasida neena mi ngi ko cey wo di ci wo kan Serigne Mbacke Niang jankotu xasida Serigne Bass Diaw neena bayu bàyyiwul gedda kaw bayu gedda suuf bayu gedda gu ndaw bayu gedda gu mag bayu sura mi ci wo ñepp kep ko xamanteni sopp nga soxna jaara Serigne Bass Diaw neena mi lay talal loxo ci bisam bobu te dila ci wo bis bi nak kan mo koy jang Serigne Khadim Gueye jankatu soxna jaara jankatu Serigne muntaka Serigne Bass Diaw dal neena mi ci wo ñepp bàyyiwuñ kenn kon nak bis ba mi ngi yamok ñaar fukki fan ak juroom ñet ci wéru novembre bi kep ku yéex ñew yaakaarna do am place ndax Serigne Khadim Gueye neena dana fa jang lu bes tax kep ku bëgg dégg RBS ñëw ñewul yobul paraxan kër serigne Bass Diaw fa la ko serigne khadim gedi jange kep ku bëgg a dégg yóbbalu poroxaan ñëwal ci bisu serigne Bass Diaw ba ca ngay dégg yobul paraxan kon serigne Bass Diaw neena mi ci wo ñëpp bayu kenn mi ngi koy yëgal ay rakam ak i magam ak i doomi ndeyam ak i doomi bayam bayu kenn mi ngi wo woo kep ko xamanteni xamante ni yaa ngi dégg communiqué bii mooy sa woote ci bis bi bak dari nar yaangi tok yaangi du dendal dano dalal gargi tay biin biin